ba tax na euh, TFM daal di koy euh, sanctionné ba daal di koy euh, dugal ca frigo ba ndiki démb mu daal di def révélation boobile ba askan wi xam ko ne kat kon nakate kàddu yooyu mu yëkkati woon moo waral TFM daal di koy sanctionné ci benn ci benn côté mu nekk tam benn mbir moo xam ne on peut dire que ne mbirum Ousmane Sonko wala langa nga xam ne ma loolu jax Ousmane Sonko tey moo nekk ci côté jamono ji. Sonko daal ba bëggee dëgg-dëgg. Mhm. ku ko laal sànku. Binta Diallo nag li ko daal moo ko teg boppam. Hmm. parce que xam nga nit booy wax. Hmm. da wax ak xam-xam wala intelligence mais doo wax ak méchanceté moom annonce bi mu defoon waxoon ni président Ousmane Sonko bu tegee heure accident yi am mais loolu science wanewu ko xam-xam wanewu ko. bi nga waxee fii wax naa la lan moo waral accident bi am accident li koy waral ñett dong la. Hmm. oto bu bon tali bu bon chauffeur bu normalu ñett mooy waral accident amul leneen dëgg la mm. dañ ko dugal ci frigo bi. waay ah, waaw na toog ci frigo bi mm-hmm. ah, euh, que mi ngi wax que ni kat Bouba dafay toog ci plateau jàkkaarlu euh, moo yor ab groupe kon moom bu défend bu waxee li xam ne mooy xalaatam war ñu ko. Bouba Ndour de. ah lu tax Bouba Ndour ah, dëgg lay défendre. Mm-hmm. léegi nag comme moom dañ ko dugal ci frigo bi. Mm-hmm. Bouba génne ko ci frigo bi nga dugal ci congélateur bi. <laughs> toto Cheikh. <laughs> yow gis yoo xam nga Binta Diallo la moo ko jëlee woon wal fajir xam nga wal fajir la nekkoon waaye lan moo ko fa jëlee ban problème la amoon ak Sidy ba jógee fa ban problème nañ bàyyi noonu Sénégal mais mais parce que du am ñoo xam ne ñu ngi bàyyi xel mais voilà mhm. nit da ngay modeste Adja Binta Diallo bu ñu demee ba la koy wax ñu ne Adja Binta Diallo est-ce que xam nga moo ko yóbbu Màkka Binta Diallo Sidy Lamine Niass moo ko yóbbu Màkka hmm. mais naka la jógee wal fajar ak problème yi am ak Sidy Lamine Niass. boo ñu ci mënee junj as tuuti. ah non garaaw man am ñoo xamante ne man damay wax rek. Mhm. man am ñoo xamante ni man seeni mbir jarul ma dama ci mën naa ci wax quelques secondes mais jarul ñu ma tardé parce que xam lu tax. man saa yu wax damay wax ci président Ousmane Sonko Pastef et le Sénégal. mais mais li mu wax ci Sonko tey moo ko dugal frigo. waaw parce que li mu wax Sonko amul. Sonko moo tëgg bool moo tax accident yi am loolu mu wax dama ni Binta Diallo loolu mu wax dara du ci dëgg gis nga nit boo toogee di wax da ngay wax analyse nga wax lu si lu xam ne lu scientifique la lu jaar yoon man kër bi ma la waxee bi ma toogee fii. mais mhm. naa la Binta Diallo li mu wax dara du ci dëgg Sonko moo tëgg bal moo tax accident la. Mhm. bis bi def accident bi ma wax la tey tuuti rek mu nga même une minute ma wax la. dafa nekk benn bis boo xamante ne transport lay def ñaari bis yëpp transport lay def bis yooyu du ay bis yu bees bis yooyu waruñu def transport. is xam nga ma wax. Mhm. bis yi dafa amoon porte bagage waru am porte bagage bis Euh, banc bi ñuy teg ci digg bi. waaw Versailles. Versailles war ko am. bis yooyu xam nga ñun bis la. boo demee Europe bis yi nga xamante ne day daw di transporter ay élèves. Hmm. dinañ yóbbu élèves yi ñuy jàng di wàcc. bis yi nga xam ne dañuy daw Europe vingt cinq ans ba moom la transporteur yi dem di jënd indi ko fii Sénégal boo ko def biis transport def ci porte bagage def ci Versailles jël ay toni ton teg ko ci kaw bis boobu bu dawee yàgg yàgg yàgg accident lay def. gis nga bis yi fii nit ñi di ci dugg di ci dem ay Touba ak boo demee Europe ay élèves yëpp. mais c'est vrai pour élève la soixante-cinq places le maximum. élèves yi dañuy jàng ñëw wàcc toog bis yooyu bu dawee ba Europe ba gaare ñu jël ko indi ko fi boo ko def bis transport bu defee accident nit ñi dañuy dee. man lii ma la wax xam-xam la Binta Diallo lii la waroon wax waxul lii. ok te man lii ma la wax mooy dëgg. Mhm. ok lii rek lii rek mooy dëgg bi. voilà. lii rek mooy daal moo nekk euh, dëgg bi comme ni ñu ko waxee ba léegi rek ñu daal di euh, continuer waxtaan bi waaye daal di ko jeexale ci euh, nag gis nañu prison Macky Sall jamono ji ci càppaandaw li nga xam ne moom mooy réñam wala daal di nekk régime bi jamono ji on peut dire que deux mois donc moo leen daal dese ci nguuru Sénégal wala ci bopp réewum Sénégal boo ñu doon wax tey ci bilan bi nga xam ni prison Macky Sall amal na ko fii de 2012 à 2023 lan nga ñu ci mën a wax. li ma la mën a xamal daal mooy. bilan wu mhm. Macky Sall 2012 ba 2023. waay dafa négatif dara baaxu ci. ah amul leen lu ci baax. dara baaxu ci. lenn dong moo ci tane. mooy lan mooy courant bi te dinaa la wax lu tax. <laughs> xam nga gouvernement Macky Sall. Mm. sur tous les plans. Mm. jëlal ma rek agriculture. Mm-hmm. wàllu mbay. dañ ca échoué. éducation jàng dañ ci échoué. protection sociale maanaam aar liggéeykat yi dañ ci échoué. ressource naturelle suñu alal jaa ngi dem dañ ci échoué wàllu pêche dañ ci échoué élevage dañ ci échoué bon gouvernance ñu jiite la nga war a jël réew mi teg ko ci yoon Macky Sall def ci échoué la décentralisation maanaam maire yi ni ñu leen war a mën a jàppale ba maire yi am ay moyen mhm. war a mën a liggéey seeni gox nguur Macky Sall def ci échoué les institutions mm. ACCT ak CSE ak assemble nationale ñii am nañ budget dix milliards ñi am budget treize milliards mais milliards yooyu ñu am ci xaalis Sénégal lañ ko jëlee yow HCCT ban njariñ la am lan la liggéey lu recaser des politiciens pourris ñoo xam ne dañoo dem ba mënatu ñu jël leen teg leen fa CSE ban njëriñ la amal Sénégal assemblée nationale dipt yi fa nekk nii mën nañ ko wàññi te loolu Macky def ci esprit ma jëlaat beneen. Mhm. secteur privé yi. Mhm. tey boo xoolee financement yi Sénégalais yi war a am. entreprise Sénégal yi mais amuñu ko. ndax nag nguuru Macky Sall jàppale wu leen énergie bu normalement Sénégal jant bi day xëy suba ba ngoon di fenk di ci gouvernement war a Macky Sall tiire ci ay ressources def ko réforme de la justice foofu moom fa la mbir ma gën a fa la mbir ma gën a yéesee lu waral Sénégal ku dem justice ñun la boo amul doole amoo xaalis kenn du la àtte isa xam nga Sénégal nit war na man am problème dem gouvernement bi jël avocat te ñu taxaw ko te du mujj fenn wàllu mi ngi nii tey boo feebaree. Mhm. la ma jox la ñaari exemple man bi ma feebaree bi ma defee accident. Mhm. dama dem hôpital bi ma demee hôpital ma dagg ticket cinq mille benn patriot sax moom ma ko daggal moom xam na ma maa ngi koy nuyu moom xam na ki moom xam na boppam. Mhm. ma dem docteur bi consul war ma consulter sama nopp bi mu ne ma fii gis nga biro bi moo fi ne consultation bi ma la mën a defal mooy dangay wax rek li lay metti après bindal la ordonnance mais boo bëggee consultation profonde dama lay wax nga ñëw sama cabinet. parce que cabinet bi ngi nekk avenue de la république boo ñëwee foofu foofu am nañu ay machine ok te cabinet privé la sama nopp bii. Mhm. pour ñu consulter ma xool nopp bi nu mu demee rek il a fallu ma dem cabinet privé fay xaalis. Mm. te hôpital yaa ngi fi amul benn hôpital booy dem ñu mën a jël ORL ñu jël sa nopp bi xool lu ci ne benn. Mm. sama bët bii ku ni moom dina gis du ma ko gëm mais privé laa fajoo parce que hôpital Macky Sall yi mënuñu maa faj ndax lu tax. lu tax yow Sénégal ban ngay dem fii ñu tegal la appareil xoolal sa bët amu fi dañuy xool rek dafa la nii bindal la tuufaay il faut nga dem ci privé bi pour faju hmm. tey am na ku ma doon waxtaanal. mu ne ma doomam dafa am asthme mais asthme bi da koy daaneel lu bari nee na mu dem hôpital ñu bind ko benn kayit mu war a def analyse. waaw ma mhm. non rajo rajo. rajo. ne ko da ngay dem Dakar ñu tegtal ko fa mu dem. cabinet bi mu dem cabinet ab naar la ñu baal ma sax ci li may wax naar la. Mhm. benn cabinet rek boo xamante ne ki ko yor étranger la. ñu ne ko 30000 ngay fay mu ne ah yoruma 30000 de 15000 laa yore ñu ne ko fii amul waxaale boo fayul 30000. ok kenn sa doom bi kenn du ko defar rajo pour xool asma bi lu waral asma bi chaque jour muy daaneel xale bi. Hmm. loolu fi Macky bàyyi. lii la fi Macky Sall bàyyi kon sa fait que Macky Sall il sur tous les plans yi xam nga Sénégal bu jaaroon yoon tey. Mhm. nit boo feebaree boo ñëw hôpital mais dañ la war a faj ba mu la fajee pare nga doog a fay ñu nga doog a fay mais Sénégal boo ñëwee premièrement. balaa ñu laa laal da ngay dagg tikki effectivement boo duggee ñu jox la ordonnance. Mhm. te yow ña lay faj yow yaay wax li la dal ñuy bind ngay wax ñu lay dind amul benn rajo. amul benn machine boo xam ne dañ koy teg sa yaram pour consulter pour xam li mën a daal. effectivement la preuve demoon naa récemment l'hôpital mais euh, hôpital mais euh, ordonnance mu bind sax maanaam jënd ma ko parce que amul benn consultation mais nag euh, ba léegi mais ci wàllum bilan boobu léegi gis nañ tamit loo xam ne ci wàllu infrastructure routière quand même am na ci liggéey bu am solo bien vrai que ne priorité aussi dafay daal di am solo ñuy accentuer wu ci loolu mais aussi infrastructure routière yeeg li ni mel yi nga xam ne. wax la benn mu ñëwaat santé tuuti. université tey boo demee. Mhm. mu université bu Sénégal. ñaata ay marocain nga fay fekk ñuy def formation santé. Mhm. gis nga marocain yooyu def formation santé bu ci pare dem Maroc liggéey. Mhm. gis nga ministre Sénégal yu bëri fii ak sëriñ yu bëri yu nekk fii Sénégal bu ñu feebaree. France la ñuy fajoo ku ci fajowul France Maroc ngay fajoo. lu waral marocain yi ñoom ñu leen jàngal ba pare ñoom ñi ñuy faj parce que seen seen plateau médical yi moo ëpp doole suñu bos. d' accord fii Sénégal Macky Sall tabax na yëpp benn amu ci matériel bu mën a faj Sénégal yow tey dama lay conseil benn mbir rek. Mhm. da bàyyi ba jour lundi ñu xëy 6 heures du matin. dem dem dem euh, ab euh, hôpital Albert Royer bi nekk fi fan ok Albert boo demee hôpital Albert Royer rek toogal 6 heures du matin ba 8 heures nga xool di fa gis plus de 1000 xale 1000 jeunes. Mhm. ay xale ay liir un an deux ans te loolu dëkk bi war na ci wax mais dëkk bi lu tax ñëpp feebar léegi lu tax xale yi léegi ñëpp a feebar xale yi xale bu judd sax deux ans commencé am trace de diabète ñu dem ay cardiaque xale yu ndaw am ay asthme. Mm-hmm. ndax lan gouvernement bi contrôle bi mu war a def ci xale yi li ñuy lekk. Mm-hmm. ci jus yi ñuy naan ak chips yi ñuy lekk ak yeneen yi gouvernement bi daf ñu bàyyi ñu dem is xam nga Sénégal fii jus yi ñu fiy naan. Mm-hmm. dara naturel la ci amul dara lu ci naturel. jus yi ñuy lan lañ koy defee colorant sucre acide gaz bind la ci jus banaan wala jus manga wala jus ananas mais du ananas te loolu gouvernement bi da ci war a wax xale yaa ngi koy naan di ay traces de diabète jus yi lan lañ ko defaree acide colorant sucre ñu naan la jus mango la wala jus ananas wala dara. loolu gouvernement bi mooy protection sociale bi mu war def ci population bi gouvernement Macky Sall daf ci échoué te ñoom ñëpp ku ci feebar France ngay fajoo lu mos dugg fii benn hôpital ba fekk fa benn ministre wala jabaram mu ci mu ciy a liggéey ko seen doom yi jàngee wuñ fi fi. dëgg la Macky Sall liggéey na ci wàllu infrastructure d' accord na mhm. tabax na pont mhm. d' accord na defar nay tali mhm. d' accord na baax na mais ak quel coût Macky bi muy ñëw fii Sénégal mu ngi am boru six mille milliards de dette la Sénégal am moom la fa Macky Sall fekk six mille milliards mi ngi ci quatorze mille de dette loo xam ne xaalis bi ñuy leb mais xaalis boobu fa la ko Macky dugal xam nga Macky xam nga ci lum ci lum réussir ci lum réussir courant bi waaw lan moo tax. xam nga courant bi Macky Sall réussite. Mm-hmm, mm-hmm. Macky Sall bi ñu ko falee mu ñëw. 2019. Mm-hmm. waay mu xam ne Sénégalais soxla nañu courant dafa waroon investir ci ay centrales électriques defu ko dafa a investir ci ay centrales éoliennes defu ko. wala mu investir ci ay centrales turbines à gaz defu koy fay. ñaata